Kani Omzo Dollar dafa tontu Canabasse tontu bu bizarre tontu bu doy waar dafa dem Vibe Radio mu tontu ñëpp xam ne Canabasse dafa demoon Vibe Radio lu yekk Omzo Dollar lu mel ne amee mu ne moom dafa bàyyi musique am dafa bàyyi carrière am ngir suuxat Omzo ba mu suuxatee Omzo ba Omzo dem ba mënal dama boppam Omzo nekk fi ñëpp bàyyi ko daal fi ko traité daal di ko war daal di dem ci Kayz liggéey ak ñoom loolu la doon nag ko muy wax ay wax ay wax yu ñaaw wax yu dëgg di wax na bàyyi feñ na wax na sax ba wax duul duul yi wax foofu wax grand mais Omzo ba mu ñëwee tontu démb moom dafa ne estimé na Canabasse mais respecté wu ko maanaam naw na Canabasse waaye joxu ko cër noonu respecté tu ko ndax Canabasse li mu def war ko woon def dem ci rajo fu nekk nga wax ko waaw moom nee na 2017 la gëj gis Casamance la gëj a dégg Casamance ndax da ko invité woon ci benn soirée am esplanade ne ko dinaa ñëw mais ñu toog tuuti Casamance ne ko sama oto dafa paan mi ngi koy tooñ sax di ko wax xanaa temps yooyu fekkul mu am Range Rover ndax Casamance kat dafay ñaawal Omzo Dollar naan ko yow sa oto paan ngay dawal mais Omzo Dollar bu leen fàtte ne mooy buzz temps yi wax dëgg clipam bi wax naa leen clipam bi mooy clip bi gën a rafet ci clip bi gën a nice soxor fi muy wax lu tax

vraiment interview bu bizarre la ñu gis ay fleur xaw ma Canabasse ku ko yónnee ay fleur xaw ma ana góor ak yónnee sa moroom góor fleur est-ce que Canabasse daf ko buggoon piéger waaw ñu ne ko tijjil message bi mu ne Omzo nag nandite la mu ne duma ko tijji ndax mënoon na tijji ñu liir fa loo xam ne Canabasse daf koy tal te boobaa Canabasse mën na génne son clash ko moo tax ma yónnee la fleur te loolu bu ko waxee dina bizarre ndax ndax ana góor ak yónnee jigéen fleur man xaw ma kan moo yónnee fleur yi mais dafa mel ne Canabasse la. mais c'était vraiment bizarre mais Omzo li ñu koy wax moom il faut mu dal waaw parce que di di wax ay merde ay média de merde parce que média bi ñoom ñoo tax nga siiw grand théâtre bi nag yëfu géeree la def Ngaaka Blindé jël na fi grand théâtre